waaw tey tax ma wootee pour wax ak taskati xibaar yi maa ngi sant euh, mboolem média yi xam ne ñoo fi teew ci sama woote bi li war woote bi nag mooy dañoo dëgmal benn bis bu ñu war a def muy àjjuma bi ñu jëm la set ñu dëgmal benn euh, masse boo xam ne dañ koy def Mbàkke def autorisation yaakaar naa yóbbu sous-préfet jébbal nañ ko di xaar moom mu nangul ñu boo ñu police ak gendarmerie mu encadré ñu ñu dox suñu dox ci jàmm ak salaam wàññeekuwaat ñibbi suñu kër ci dox bi nag lu ko sabab ak marché bi lu ko sabab mooy facture courant yi nga xam ne dafa génn ñu yokk ko lool ba mu jéggi dayoo lool mu métti lool nag ci askan wi metti lool nag ci Sénégal yi métti lool nag ci diggante Mbàkke ak Touba moo waral. suñ dox suñ suñ suñu dox boobu ñu war a dox àjjuma bi ñu jëm à partir de 15 heures waa xam nga marche moom suñu droit la préfet ko dañ koy yëgal yëg yëgal gi nag moom yaakaar naa ne mooy ñu dañuy dox moo war ñu bind suñu autorisation dem jébbal ko wëgg buñ ci yeggee mu boo ñu police ak gendarmerie mu encadré ñu ñu dox suñu dox ci jàmm ak salaam wàññeeku waaye ñibbi suñu kër kon mas suñu suñu doowaal tàgguwuñ ko dañ koy yëgal waaye lañ ci jublu ñun ñoo jege askan bi xam li ñuy dund ci wàllu ay dépenses yu diis yu ñu leen teg ba jéggi day wax courant bi seeroon lool ba ñu wax ne nañ nañ ko wàññil au lieu que ñu wàññi ñu mais dañoo yokkalaat facture yi mu double fuuf lan daa fay mu metti nag askan wi lool gis gann nag du gann ba tax na te amuñu fu ñu koy jooytoo nee nag ñun la suñu wàll lañ ca war a dox boo ko caa wax mooy ñu yuux yëglu ba kilifa gi dégguñu mën a teggal askan wi lu metti li leen teg te ñoom waruñu leen ko teg muy facture yu diis yi ak dépasse bi nga xam ne ñaare muy ceeb bi diwlin bi ku ne xam ne ne seeraay gi jéggi na dayoo te aussi courant bi li ci aju dafa bare buñ ko yokkoo moom jéggi dayoo leneen yokkaat ci ginnaaw dafay ñëw parce que li botu ci ginnaaw am dafa bari ba tax na ñu ne dañoo lànk dañoo bañ d'accord ñu tey ñu yokk ko ki leen d'accord mooy ñu wàññi ñu ko fam fam nekkoon ñu wàññiwaat ko ba mu gën a woyof ci askan wi parce que dundin askan wi dañ ko wàññi ba Sénégal yi bu ci nekk man cee gis sa bopp cee ànd bu baax a baax a baax parce que Sénégal yëpp dañ cee ànd parce que képp koo xam si yaa ngi fay courant ci saw ñaq dañ cee war a ànd ak foo mën a féete nag parce que man parti au pouvoir fa la féete président Macky Sall laa gëm bëgg ko wóolu ko loolu ci li muy def nag waaye en tout cas ànduma moom ci facture yi courant yi nga xam ne saa dañ koy yokk mu gis kenn ci askan wi dama jàpp ne état amaat na fenn fu war a mën a jëlee xaalis pour bu Senelec amee problème mu dóor ko ca mais mais pas moom Senelec am problème mu ne xaalis bi war a dépanner Senelec ci askan wi laa koy jëlee ci far force mën a ñoo bañ ñoo lànk daa koy ci loolu ba tax nag aju incha allah dinañ ci dox dinañ ci wax luñ ci mën a fekk baax luñ ci mën a fekk baax conséquence yu nekk mën caa jógee nag mais amul benn problème en tout cas dinañ ko dox. tarifa lañ lay wax mooy tàgg la lay yëgal mas suñu duwaa la boo ñu ak police ak sànni mu encadré ñu jox jàmm ak salaam daal ñibbaat suñu kër lañ la jox nga yegal ñu ko ñun fu fu mu mënut a yegg loolu lañ bëgg. waaw nee naa la képp koo xam ne yaa ngi dundee saw ñàq rek yënga météo réew mi xaw ma ne kuy dundee ñàqu keneen xaw ma nag kuy dundee ñàqu keneen waaye képp koo xam ne si yaa ngi dundee saw ñàq yënga ne réew mi métti na trop dépasse yi diis na trop benn kër ngay dem benn nit nekk fa di noonu fukki nit ak juróom su ko waxul ma ngay bëgg a dee su ko waxee ma ngay bëgg a dee dépasse yi ñëw facture courant bi ñëw man sama facture bu mujj bi sama kër màggal nga xam ne ngay taal climatiseur yi taal congélateur yi 30 000 francs mais bi ñu yokkee bi ñëwee maa ngi 60 000 francs parce que ay 30 nangam mi euh, euh, dolli nañ ko ca ñoom ñu ne ñoo aussi. boobu koy nooy kenn du leen yokkal déedéet c'est faux loolu du amul ñëpp la ñu yokkal seen lekk ci jëm boppam dañu am problème problème bi njëkk am mooy ñoom seen jëm du ñu liggéeyul yéen journalistes yi dem neen ci agence Senelec yi ci yenn heure yi ngeen xool clients yi déglu clients yi ngeen xam ne Senelec liggéeyul nit na aussi boo liggéeyul la nga bëgg ci am koom-koom mënoo ko am da ngay liggéey soo ko mën am koom-koom mais ñoom dañoo liggéeyul ba noppi aussi dañ bëgg ci mu koom-koom ko jël ci askan bi ñoo bañ ma ñoo lànk dañuy dox ba sàmmali ca dem ba. sama wàll bopp mosuma siy gis sama bopp lu dul rek lu dul ci élection yi wees yi wees nga xam ne président dafa nekk deuxième mandat laa ci mas a gis sama bopp na boobu it xam naa ne xawoon naa tiit jàppoon na ne xëy na li mu bëgg du ko am ba tax na ñi nga xam ne ñoom la àndaloon démb moo wàññeekuwaat ci suuf wax ñoom ba yàlla fi ñu nangul ko wàññeekuwaat jàppale ko ba li mu bëgg mu amaat ko waaye à part loolu mosuñu ci suñu bopp. gisuñu suñu bopp bari na lool nag ñoo xam ne gisuñu ci seen bopp waaye nag lu waay sa bopp waaye ñun suñu wàllu bopp dañoo nekk nit koo xam ne du duñu wut ñaxtu politique yaakaaruñu kenn ci politique ba tax na ñun suñu xalaat ak li nga xam ne moo jëm ci askan wi dañ koy wax ba sàmm la ci dem waaw xam nga nag ñaare en général ñi nax ñii ci kaw mooy Moustapha Diakhaté am na tur ba tax na ma ma la mu wax ma ko ca dàq waaye amul njariñ parti bi parce que amul base politique ba suñu façon yi xëy na ñaare am nañu tuur ci département bi waaye amuñu tuur tuur ca kaw waaye li ñu amal njëriñ parti bi Moustapha Diakhaté xaaj ba xaajul bu bu amuñu ko njëriñ ba tax na ñun ñaare yooyu seen seen tuuñ ci ci ñun ci fànn boobu. bu ma dàqee dàq dàq ci loo moom parti bi ñu ñoo ko fondé gën ci carte yi jaay ci carte yi soo ma laajee sama carte ma génn la ko président Macky ëpp ma ci daa nekk ci ba nekk li mais moomul parti bi.